ci ligue liggéey bi ñu dénk suñu commission rencontré acteurs yi moo ñu yëkkati tey nag ñu ñëw ministre Zahra Iyane objectif yi mooy xool ak moom liñ ko jox naka la ko dépenser ci région Sénégal yëpp lan la jox ku nekk wan nañu ko ci tableau paregul tournée mi je crois que fii ak le 15 lay paré, inshallah, allah bu pare ñun avant le 25 dañu saytuwaat yëpp pour ñu mun jébbal liggéey bi Jean François Ndiaye pour mu jébbal ko président de la République parce que suñu rôle moy saytu mbirmi mi naka lañ ko utiliser. ñun nak commission bi ñu yor ligue bi day continuer parce que comité stabilité macroéconomique la préservation des emplois le titre dafa xaw a gudd loolu mooy bu pandémie bi jéxé ñun dañuy kon réfléchir sur naka lañuy relancer économie bi parce que impact Covid bi dafa am impact immédiat moy li ñuy gis ak impact boo xamni ci wér ñuy jëm si lay ñëw information yi ñu fi de dal na suñu xel parce que mbir mi li ñu won en tout cas comprendre nañu ko bu paré dinañu jox limu mu ñun ñu saytu et je pense que li ci dess moy naka écosystème économique Sénégal yépp mara mëna def pour dimbalé façon ministère wax nako moy plaidoyer la soxla won ci ñun bu soobee yalla bu ñu paré li ñu dénkoon ci suñu recommandation nañ seet aussi ah, pour que l'autorité yi dimbale davantage ministère c'est vrai que secteur yëpp ak soxla ndimbal mais de femmes secteur yoo xam ne autonome rek peut ñooy dimbale